أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suuratu at tawba ci kàttanu borom bi tey ñuy jël aaye 100 101 102 mu nekk ñetti aaya ñetti aaya yoo xam ne sunu boroom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal ngëneelu assabq lil xayri wal fawz bi awliyaihi ngëneel fadl ngëneel gu nekk ci njëkkante def yiw pour texe dinañ jàng tey li tax sahabatul kiram nekk ñoo xamante ne mënuñu tolloog ñoom ëllëg raw giñ ñu raw ngëneel yi ñu làq ñoom sahaaba yi àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey danañ ko jàng ñu xam ne ñooñu duñu suñu moroom ñooñu su fekkee dañuy wax diw amul maas diw amul moroom ñooñu lañ ko war a wax sahaaba yi lañ war a wax ne ñi amuñu maas ñi amuñu moroom lu tax xool leen ca jamono yooyu la muy métti métti métti métti ñoom ñoo waroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam jamono yi nga xam ne kenn ñëwewul feeñal sa ngëm ñoom ñoo feeñaloon seen ngëm jamono ji nga xam ne kenn ñemewul wax ne man jullit laa ñoom ñoo waroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne ñoom ay jullit lañ naan ñun ay jullit lañ jamono bi kenn ñemewul wax laa ilaha illallah sahaaba yi ñoo taxawoon naan laa ilaha illallah moo tax dina ma jaaxal tey yenn saa yi su ma jégee ñu naan diw moo tax lislaam tasaaroo wala bu doon du diw yéen ñëm ngeen nekk ay yéeféer loolu ay léeb ak léppoon la loolu ay léeb la laa wax sahabatul kiram yàlla moo leen tànn yàlla bi mu bindee ruu yi dafa testé ruu yi mu gis ruu yi ruuxu yonent yi ñoo gën mu jël ruu yi teg daan ne ñii laay def samay yonent mu teste ruuxu yonent yi mu gis ruuxu muhammad moo ci gën mu jël ruu bi ni ki mooy gën gi mbindeef kii moo gën ci li mu bind moo tax ngeen jàng tilka rusul faddalna baaduhum ala baad zalika al fadl min allah ngëneel googu yàlla moo ko yore yàlla bi mu testé ruu yi mu gis ruu yonent yee gën mu def leen ay yonent mu testé ruu yonent yi mu gis muhammad ci gën mu rocc ko mu testé waa ruu yonent yi mu gis ulul azmi min ar-rusul ñoo ci gën mu def leen ko nuux ibrahim muusa isa muhammad juróomeel leen mu testé waa ruu yi mu gis ruuhu sahabatul kiram ñoo gën mu def leen ay àndandoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yonent bi bañ koy laaj suuf si ñu fi gën mu ne maa wataatil ardu baada al anbiya xayrun min abi bakr allahu akbar ginnaaw kaw suuf yonent yi bu ñu paasee boo jëlee yonent yi nga teg leen de côté ka gën ci mbindee fi mooy abou bakr après nañ leen rangalé Ousmane Umar Ousmane Ali ak ña ca tegu as-saabiquuna al awwaluun min al muhaajiriina wa ansaar dinañ ñëw léegi ci aaya yi ni leen boroom xam-xam yi toppalee ci ay rangé ni ñii ñoo gën ñii ñoo gën ñii ñoo gën ak ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ne xayru naas qarni li gën ci siècle yi mooy sama siècle summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum ila axir ila yawmi alqiyama la gën ca nit ña la yàlla bind mooy jamono yonent yàlla muhammad ba mu paasee ña ca tegu ñoo ci tegu ña ca tegu ñoo ci tegu ñun ñii ngeen di gis ñu toog ñun ñoo gën suñuy doom ëllëg gis ngeen génération yi ni muy yàqoo génération bu ñëw rek bay ñëw ci ginnaaw moo gën a yées xam ngeen ne ñun suñu jamono suñuy jamono bàyyi moo gën suñuy jamono am na loo xam ne tey ku fekkoon sunu papa yi ci yow mal xiya àlaaxira naan leen Sénégal léegi jigéen ñi dañuy sol ay tubéy kenn woddootut lu la paa yi di wax ah Sénégal léegi nangam am na fa nangam am na fa nangam paa yi ci bàmmeel yi lu ñu lay wax déedéet yow foo dëkk est-ce que yow mi Sénégal nga jóge lañ lay wax déedéet loolu ñun bàyyiwuñu ko fa lu raw loolu tey moo ngi am fii ñun tamit gis ngeen sunu doom yi di ñëw ah xam nga ñun dañuy jooy ay pantalon silip ngeen di gis silip kuy dox sol silip ngeen baal ma ci kàddu gi fa lañ jëm kon ngëneel gu rëy gu ña àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam làq am ko ci lan ñoom dañooy dégg lu baax di ko njëkkante ñun bu ñu déggee lu baax dañuy xaar diw def ñu doo ko def wala ñoom dañooy njëkkante lu baax li ba ca tegu mooy fadlu ashaabu rasul sallallahu alayhi wa sallam ala gayrihim mimman jaa baaduhum wallahi waxuma yonent bi du ma wax yonent bi de yonent bi sax dafa ëpp du ma wax Aboubacar du ma wax Umar du ma wax Ousmane du ma wax Ali du ma wax ñoom Bilal ak ñoom Hamza ak ñoom Ammar ak ñoom Suayeb ak ñoom Musab du ma wax ñooñu ñoom imaamu Malik laay wax ñoom imaamu Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad ñoo gën ñi yeewoo Sénégal lu tax kenn dina ne xam naa fi mu toog mais kii mu dëgër fit lu tax muy wax li mu wax ah ma tontu sama tontu mooy ki nga jàpp mooy sa sëriñ loo jàpp ki nga jàpp mooy sa sëriñ loo jàpp ci moom moo la gën bu la gënuloon doo ko def sëriñ ñun ñii ma lim fii ñooy sëriñ waa Sénégal Sénégal kuy seen sëriñ Imam Malik ah. allahu akbar imam malik gisul sax yonent bi te sénégal ku fi yeewoo ku ne même sunuy borom xam-xam yi fi yeewoo dañoo bind seen taalibe yi ne leen jàpp leen ci ngirum malik ñun malik ay sunu sëriñ allahu akbar te malik moomu ñooñu ñu gëm waa sénégal gëm ba def jël ngiram gisul yonent bi te ñoom jàpp nañ leen ne Malik a leen gën te effectivement noonu la melee Malik a leen gën Malik radiyallahu rahimahullah nee na musuma fanaan guddi ba yeewu te gisuma yonent bi Malik moo njëkk a bind téere hadis tudde ko mu watta bi mu paree ci téere hadis bi dafa jaayanteeg boromam mu ne yàlla bu fekkente ne téere bi du xam-xam dong nga tax mu jóg téere bi bu fekkee du diine rek moo tax mu jóg mu jël lekket def ci ndox ba mu fees dugal ci téere bi ne yàlla téere bi na tooy téere bi wow koŋ Malik moo doon jàngale jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam Malik moo doon atte jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam Malik moo doon imaamu jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu xëyoon suba day sangu defaru ba pare daal di toog commencé di jàngale ku ñëw ne ko alxuraan lay jàng mu commencé fiq lay jàng mu commencé nangam lay jàng mu commencé soo ñëwee ne ko hadis lay jàng mu ne xaaral ma ñëw day dem simmeekuwaat xëppoowaat ndox solaat yeneen yére kaalawuwaat sotteeku parfum ñëw toog ne la kuy jàng hadis ana mu ne maa ngi ni mu ne kaay toog lu tax nga changé ji mu ne damaa bëgg yonent bi Malik dund na ba dee musta sol dal ci biir Medina nee na suuf suñu suul yonent bi du ma fa dox di sol daal Malik musta tukki dem dëkk boo xamante ne dañuy suufeel yonent bi nee na man dëkk bu ñuy saaga yonent bi du ma fa teg sama tànk su daan jàngale hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam day toog bàmmeelu yonent bi nekk ndey jooram mu toog nii bàmmeel bi nekk ndey jooram su waxee ba ci yàgg mu ne kullul kalaami yu xas wa yu radd illa saahibu haazal qabr mu jël loxo bi teg ko ci bàmmeel ah Malik moomu mu ngoog te gisul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon foog ñu delloo si xel yi ñu xam ne mbir mi mbiru diine la du farfarloo ñoom diw ak ñoom Samba ak ñoom Demba amul importance xam nga lu am importance yow nga jéem a baax diw dafa baax loolu amul njëriñ moom mbaaxam la tilka ummatun qad xalal laha ma kasabat yéen walakum ma kasabtum wala tusalunna amma kaanu yamaluun yàlla nee na génération yi ngeen di wax naan ñoom diw ñoom diw diw amul njëriñ ñaamonam ñaamotaa ko yaronam yarotaa ko daanonam daanotaa ko sa nokki longere a waɗi e heƴƴudu a tinata ina safi tinata ko ina wuli an imam sow sa nokki longere a waɗe huƴƴudu kottinata ina wuli kono a tinata ina safi ay way holnde tinata ina weeli mbaɗa e hunuko affaire bi nelawal ma du sotti lekkal ma du sotti reeral ma du sotti añal ma du sotti yow yaa koy defal sa bopp loolu mooy mbaax doo fa gis kuy lekk ba ne dañuy reera reeraaleel ma ma reeraaleel ma sama wàll est ce que bu waa ji reeree yow di nga ci yëg dara day ñëw kaay leen ñu tëdd nelaw nga ni noonu nelawal ma maa ngi toog fi ba ci kanam nelawal ma sama wàll dina la jik boo ko defee trois jours nga dem hôpital mooy jaamu yàlla jaamu yàlla ak mbaax noonu la mel diw dafa baax déema la baax munul baax ba yóbbaale la alxayru sëriñ bee ko wax de alxayru laa yanfau illa li failihi wa charru laa yadurru illa li failihi lu baax du jëriñ lu dul ko ko def wa an laysa lil insani illa ma asa kullu nafsin bima kasabat rahina illa ku def lu baax sa bopp nga ko defal nañ leen jéem a baax loolu moo am importance nañ leen jéem a nekk ay jullit nañ leen jéem a am tawxid nañ leen jéem a xam alquran nañ leen jéem a roy yonent bi alayhi salatu salaam loolu moo am njëriñ loolu la ñuy laaj alaxira waaye du ñu laaj sàmba wallahi allazi la ilaha illa huwa lu nit di baax baax Sénégal boo duggee bàmmeel kenn du la ko laaj ndax xamoon nga diw amul amul amul alaxira ku la jur amul alaxira dañoo fekk ali zeyn al abidin ibnu husayn ci kapaaru kaaba gi dafa julli ba jëbi nekk mel ne nefere nag nefere nag ñuul kuk bakkan bi ñuul kuk ndax ni mu koy tegee ci siyaada yi oom yi ñuul kuk mu fekk ko muy jooy ñu ne ko Zeynul Abidin looy jooy mu ne léegi laa doon jàng alxuraan sama xel daal di sama bët yi daal di daj benn aaya aaya bi mooy lan fa iza nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yawma izin wala yatasaaluun yàlla nee na bu ñu walee bufti ba ñëpp dekk kenn du laaj koo bokkal te nee na man bu ñu laajul ku ma bokkal kenn du xam may kan man Hussein mooy sama baay Fatima mooy yaayam Muhammad moo ko jur kooku sariwul de ah kooku tey bu feeñoon Sénégal lu ngeen di yaakaar la ilaha illallah yow yaay kan mu ne man Ousseynou sangu ndawi aljanna yi aljanna ëllëg bu ñu dekkee Ousseynou mooy seen sang pour ngeen comprendre mooy nekk capitaine bi mooy takk barasa bi Ousseynou allahu akbar Hamza mooy takk drapeau ñi ñu rey ci yoonu yàlla Seydou Sohada Muhammad mooy yor drapeau gën gi mbindeef allahu akbar ñii ak takk nañ ndomba tànk de kuy sa yaay Fatima moo gën ci jigéeni àddina kan mooy baayam muhammad nee na lii buñ ko laajul du ñu xam maay kan te yàlla nee na yowmal xiyaam kenn du ko laaj man lii laay jooy fekkoon ne yowmal xiyaam buñ dekkee dañuy ran ñu ne yow kuy sa papa di xool liste bi kuy sa yaay kuy sa maam loolu amul njëriñ ah amul njëriñ xoolal bu ñu doon laaj yowmal xiyam abu lahab abu taalib abi lahab daal dina tëll yegg si nekk baayu yonent bi ñu ne ko yaay kan mu ne man maay papa yonent bi bu doon xel la luñ koy wax jàllal ah bilaal ne tëll ñu ne ko yaay kan kenn xamul papaay bilaal kenn xamul yaayu bilaal bilaal juddowul màkk yarawul màkk bilaal fan la juddoo Éthiopie nekkoon jaam ñu jaay ko Umayya Aboubacar jënd ko goreel ko mu dugg ci lislaam di noddal yonent bi allahu akbar xoolal bi mu nekkee yéeféer ak bi mu nekkee jaam ak bi mu nekkee jullit fan la ko lislaam yóbbu yonent bi dégg ñaari tànkaam di yëngatu biir aljan pour ngeen xam ne bilaal du ku ndaw yonent bi musta julli lu dul bilaal moo ko nodd julli gi ngeen xalaat nag ci julli farata bilaal moo ko nodd yonent bi julli ah yemul ci loolu de bilaal moo yoroon magasin yonent bi alayhi salaatu wasalaam bilaal saa yu jiitoo yonent baa bilaal yonent bi saa yu jiitoo bilaal a ngi ci ginnaawam di dox yonent bi lu mu soxla woon danaan ay na bilaal te xool kenn xamul papaam kenn xamul yaayam kenn xamul ay maamam kenn xamul da ngay dégg ñu ne jaam la woon waaye xoolal ni ko lislaam yëkkatee Bilal di dund yonent bi dem laylatul isra wal mi'raj ñëwaat ne ko Bilal dégg naa sa ñaari tànk di yëngatu aljanna muy dund ñaari tànkam di yëngatu aljanna allahu akbar te bàyyi yonent baa ngi ni war a dee dem safara alxuraan di ko xas tabbat yada wa tabba ma axna sa yasla sa yasla allahu akbar du moom rek de wamraatuhu pourtant mooy mbokk yonent bi l'islam du mbokk l'islam du doom l'islam du xarit l'islam du àndandoo l'islam du ay taalibe l'islam du ay sëriñ l'islam du doom ana doomu nuux mu ngi safara nuux ulul azmi mina rusul mooy mooy doyen yonent yi nuux mooy doyen yonent yi mooy seyxul mursalin ñi yàlla yónni nuux mooy seen doyen doomam ma nga safara kon l'islam du mbokk du ay doom l'islam du jabar jabaru nuux ma nga safara jabaru luut ma nga safara l'islam du mbokk baayu ibrahima ma nga safara l'islam du mbokk xaaru naa ngi safara te cousin wu Moussa la l'islam du mbokk baay taxu yonente bi ma nga safara abi talib ba paay ali xoole ali ali papa ma nga safara waaw léegi nag léegi nag kon l'islam xam nga lan la xam jaamu yàlla ak koo mën a doon boo jaamoo yàlla tekki nekk xaritu yàlla boo xamul yàlla noo safara nga jëm ak ku la mën a jur nag l'islam du ay jur nañ génne yooyu suñu bopp l'islam du ay l'islam du ay kër kër amul ca yàlla xam nga ban kër moo baax mooy kër gu ñuy jaamu yàlla foo ñu xam loolu dugal ko suñu bopp yi l'islam du ay kër l'islam du ay mbooloo l'islam ku yàlla xam du ku mbokk ci mbooloo sàngam yàlla ku mu xam mooy jullit ki ko nangul kon sahabatul kiram dañoo am ngëneel gu rëy a rëy rëy rëy rëy ci yàlla ak ñeneen ñu dul ñoom ginnaaw yonent yi sahaaba yi ñoo ci tegu ñoo gën a baax ba ca tegu ñetteel mooy danañ jàng fadlu taabiin génération ba ca tegu ñoo gën li ashaabi rasul in ahsanu mutabaa su fekkente ne ñoom tamit jaar nañ fa sahaaba yi jaaroon nekk ci ginnaaw yonente bi ñu ñëw jaar ñooñu moo tax da ngay dégg suñuy suñuy xutba wala ñuy conférence ñu ne waman tabiahum bi ihsanin ila yawmi din ba bés penc di ñëw noonu lay demee ba ca tegu mooy xam gi yàlla xam xolu doomu aadama yi yàlla dafa xam suñu xol yi te nag xol yi yàlla rek moo xam lu ci nekk yàlla moo xam suñu xol yi lu ci nekk keneen xamu ko rabbukum aalamu bi ma fi nufusikum mën nga am soxna ngeen bokkulal di fanaan xamoo lu ci xolam mën nga am doom nga jur ko xamoo lu ci xolam mën nga am baay mu jur la nga am jëkkër muy sa kilifa waaye xamoo li ci xolam yàlla dong moo mun a xam li ci xol yi loolu dafa war a leer ci ñun yàlla moo xam saxaaba yi lan moo nekk seen xel lan moo nekk seen xol moo tax yàlla génneel leen ko yàlla gërëm leen ne ñii kat kontaan naa ci ñoom ku yàlla ne kii kontaan naa ci ñoom kan moo mun a wax kii baaxul ah xoola chia yi lu ñu wax ñu ne saxaaba yi kenn baaxu ci saxaaba yi ñaata lañu woon cent vingt quatre mille si ay ñu ne ñett ñoo baax ñett loolu la muy tekki suñ nee paa bi am na vingt doom mais kenn baax lu muy tekki damay laaj lu muy tekki mooy paa bi moo mënul yar kon paa bi dafa échec ah yonent bi nag cent vingt quatre mille la saxaaba la amoon kan ngeen ci dégg ku bon ah même hadis ba bu wérul da ngay dégg ñu ne yonent bi moo ne ashaabi kan nujum kullu maqtadaytum ihtadaytum am na ñuy jam hadis bi yonent bi nee na sama sahaaba yi ñi ngi mel ne biddéew ñi ngi mel ne ay star lañ ay star baatu nujum foofu lu muy tekki mooy ay star lañ yonent bi ne samay sahaaba ay star lañ koo ci topp rek jub koo ci topp baax allahu akbar royal abou bakar nga xool nooy mu jëmel jëlal Umar nooy mu jomel jëlal Ousmane jëlal Ali jëlal Hamza jëlal Musab jëlal Ammar jëlal Soayib jëlal Abdurrahman Ibn Awf jëlal Muaz ibnu Jabal moo tax mu ne samay sahaaba ay star lañ kan nu juum kullu maqtadaytum ihtadaytum ku ngeen ci topp rek jub baax parce que ñoom ñëpp a baaxoon yonent bi du yar ku bon jamais ku bon yonent bi du ko yar kon su ko defee ñu xam ne yàlla dafa xam la ca xol ya ba ca tegu beneen mooy arraja li ahli tawxid allazina xalatu amalan salihan wa axar sayya am na ci groupe goo xam ne ci mbooloo yi am nañu tawxid ci nit ñi ñu kennal yàlla lañ ñu ko gëm lañ waaye ci seeni jëf dafa am yu baax ak yu bon ñooñu nag dañ leen di bàyyee yàlla jalla jalaaluhu azza kamaaluhu bi an yaghfira allahu lahum wa yarhamahum ñu leen di ñaanal yàlla yàlla jéggal leen yërëm leen donte ne am nañu tawxiid ñooñu la ñuy wax danañ dugg safara waaye dañuy génn duñ fa sax ndax la ñu kennaloon yàlla mooy tax ñuy génn safara dem jóge aljanna waaye safara yàlla nañu ump kon su ko defee ay ñetti aaya yooyu la ñuy jël jël benn aaya bi mooy wassaabiquuna al awwaluun min almuhaajirina wal ansaar walladina ittabauhum bi ihsaan radiyallahu anhum wa radu anhu ma bàyyi seex bi mu jàngal ñu ko insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم allahu akbar
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة asbuk jazakumullah xeyran la yubarik fiik suñu borom subhanahu wa taala mu ne والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله أكبر والسابقون ñi nga xam ne ñoo jiitu woon al awwaluuna ñu njëkk ña ca première heure ya ñaari mbooloo lañ min al muhajirina wal ansaar ci ñi gàddaayoon jóge màkk jëm Medine ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ansaar ñoo dalaloon ñi gàddaay asaabiquun ñooñu nga xam ne ñooy ñu jiitu woon hum allazina sallu ila alqiblatayni mooy ñu julli woon ci ñaari qibla yi ñoo julli masjidul aqsa ñoom ñoo julli ñoom ñoo julli masjidul haram ñii ñooy asaabiquun al awaluun ñii la min al muhajirin wal ansaar ñoom dañoo julli ñaari ñaari qibla yëpp lañ julli gaa yi yéen ñaata qibla ngeen julli ah benn ñee ñaar ngeen bëgg a tolloo ak ñooñu ah ñee ñaari qibla mu ne wa afdaluhum alxulafa ñi gën ci ñoom mooy xulafa urrachidin ña ñooy xulafa aboubacar Umar Usmaan Ali ñan ñoo ta te- tegu albaaquuna min almubashirina bil janna ñaata ngeen lim sànq ah ñeent kon ñan ñoo ci tegu juróom benn nit ñoo ci tegu Saad ibnu Abi Waqas Abdurrahman ibnu Awf Zubayr ibnu Awam Saad ak Saïd ñii ñoo ci tegu soo leen boolee juróom benn yi ak ñeenti ñee ñuy fukk ñooy asara al mubashirina bil janna ñii la yonent bi xool ne leen yéen ñëpp àjjana ngeen jëm ñii mun nañu buuxante ak ñoom ñi mën nañu dëkk tëkkalante ak ñoom koo xam ne yàlla moo ko waxal boppam wasaabiquuna al awaluun min al muhaajirina wal ansaar ñi yàllaa ko wax parce que dalil bi mooy yàllaa ko wax fii nag da nga jékki-jékki ñu ne Samba ak Demba kërti kërti dugg fii jox nañ ma caabi àjjana ana dalil bi fu ko yàlla wax ana hadis bi dafa yomb de mun naa ñëw fii tafsir rek ne leen caabi àjjanaa ngi nii gars yi bismillah ku am 5000 rek ma defal la ko kele minute wala 10 000 sax wala ma yóbbu ko 50 000 kele minute ma jox sek ah ah yomb na di mais dañ laa war a laaj dalil waaye li nga wax nii fan la ko yàlla wax ak yonent ña ca tegu ginnaaw ña julli ñaari xibla yi ña ca gën ca ñoom asaabiquuna al mu awwaluun min al muhaajirin lañ leen di wax ñooy ñan mooy ñu julli ñaari xibla yi ña gën ci ñoom mooy alxulafa ñeenti ñi ña ca tegu mooy juróom benn ya des ci fukk ñi ñu jugal aljanna xoolal xoolal xoolal xoolal ñoom Aboubacar ndomba tànk yi ñi takk booy lim ñi julli ñaari xibla yi est ce que Aboubacar génn ci génn ci Umar génn ci Ousmane Ali génn ci ngay lim fukki ñi yonent bi ne di ngeen jugal aljanna ñoom ñeent ñi ñëwaat taxaw bokkaat ci ñan ñoo ci des summa ahlu badrin ngay lim waa badr ñoom dañ ciy génnaat xoolal rek ñoom looy lim ñu ngi ci biir ngay lim waa badr ginnaaw ñee ba ñu paasee ne julli ñaari xibla yi ñeenti xulafaa juróom benn ñi des ci ñi ñuy bégal aljanna waa badr ñi demoon badr allahu akbar gaa yi nag fii nee nañ ceer say ku umar omo tawaa wolde badri yéen tugalóor yi yéen a ko wax de mete badiri koy sene koy ndakaaru wonno badiri ko holton yéen a ko wax yéen a ngi nii allahu akbar ñan ñoo ci tegu ashaabu uhud ña fekke woon uhud gis nga de ñan ñoo ca tegu ahlul bayatu ridwan ña fekke woon keroog ba yonent bi di jaayante ca garab ga ba muy wax laqad radiyallahu anil muminina is yubayi'unaka tahta shajara ñooñu ñoo ci tegu ñii ñëpp nag buñ leen boolee mbooloo yii yëpp ma lim ñaata lañ ñaata lañ ñaata mbooloo laa lim ne ñii ñoo ci gën ñaan ñaata lañ ñii ñëpp boo leen boolee wa afdaluhum alal itlaq abu bakrin ñii ñëpp boo leen boolee ki ci gën mooy abu bakrin siddiq ah kooku tey ñu am Sénégal ku ko gën du ma wax yonent bi de ndax yonent bi vraiment moom dañ ko war a teg fële ñu jël ñu jël ñu jël ñu jël ñi mu yaroon rek du xool dañ lañ war a jël ba pare balaa ñuy diir mbagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñii ñooy wasaabiquuna al awaluun ñi jiitu ñu njëkk ña ca première heure ca kudd yu tàng ya mooy ñii min al muhajirin nag wal ansaar daf ci am ñoo xam ne mooy muhajir saa yoo déggee muhajir mooy ñi gàddaa yu jógee Makka dem Midine mbokk yi neexul ba neexul waaye wallahi allazi la ilaha illa huwa mënuñu tolloog sahaaba yi yeneen bi jógee Makka di dem Midine di gàddaay boobu jamono ban jamono la woon xëy na yéen am na ci yéen ñoo xam ne du ñu xam diggante Makka ak Midine parce que yàlla def na demaguñu fa ñun ñi nga xam ne jot nañ faa dox tuuti ak suñuy dugg ci ay kaar jëm fa jóge Mak jóge Médine jëm Makka nga xam ne ci ay kaar climatiseur ngay dugg kaar yoo xamante ne dafa lix autoroute boo xamante ne moo gën a baax seen autoroute péage yi ak seen autoroute Ila Fouta bee ah moo ko gën a baax juróom-ñaar fukki junni yoon kaar yi buñ ci tegoo te xoolal allahu akbar da ngay toog ba sonn imagine leen yonent bi war a jógee Màkka dem Médine septième siècle xalaat ngeen ko ci lëndëm xalaat ngeen ko ci ay montagne xalaat ngeen ko ci ay xeer xalaat ngeen ko ci ay yuy dox ci suuf xalaat ngeen ko ci ay ah garab xalaat ngeen ko ci lan ci koo xam ne xoola gëléem la yor ci Sahara désert tàngaay bi terewul yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu jógee sahabatul kiram daal di koy topp ñi bàyyi seen i kër nga gis ku ne jaba ay soxnaam ay doomam kaay leen dem ah ñun demuñu mu ne man dem naa inni muhajirun ila rabbi gis ngeen ka ca mujj génn màkk dafa feebar fay ay nit ñu teg ko ci lal di ko génn màkk mu daal di faatu réefee yéefee yi di ree daa nekk kii de daa bëggoon dem dugg àjjana waaye safara la jëm màkka la deewee yàlla daal di indi aaya bi ah gis ngeen Shuayb ba muy dem dafa jël alalam suul ci biir néeg bi daal di gàddu ay feetam génn waaw maa ko topp ko mu ne leen taxaw leen bu leen yegg si xam ngeen ne man sama flèche yi du moy mun ngeen ma rey nag waaye balaa ngeen may rey ñu bëri dinañ tëdd lan ngeen soxla wax leen ko rek ñu ne ko alal ji lañ soxla mu ne mu ngi sama biir néeg su ngeen demee place sàngam di ngeen gis suuf su bees sàq damaa gas dugal ko fa dem leen ngeen jël ngeen bàyyi ma dem bu fekkee nag dee ngeen bëgg ngeen ñëw gaa yi ne ko ñun alal ji lañ soxla mu dem yàlla lan la wax minan naas man yasri nafsahu ibtiga soayib la am na ci nit ñoo xam ne dañoo jaay seen bopp jënde ko yàlla nga gis ku bàyyi ay jabaram bàyyi ay toolam bàyyi ay bitigam bàyyi ay magasin bàyyi lu mu amoon foo foo jëm mu ne inni muhajirun ila rabbi mala yan sala ne ci xadisu hijra ba lu mu wax man kaana hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu gis nga kon ñooñu mënuñu yem ak ñoom ñooñu ñooy assaabiquuna al awwaluun min al muhajirin wal ansaar waaye xoola ñi daj coono gi ñu daj yëpp ak xuus ba yegsi ñu fekk fa ñoo xamante ne dañu ne leen kaay leen yéen ay sunuy mbokk kaay leen ñu séddeeg yéen lu ñu am kii ne la kaañ dem am naa jabar yu bari nga xool koo bëgg ma fase ko nga takk ko kaañ dem am naa ay kër nga xool kër gu la ci neex même bu dee bi ma dëkk ma génn nga dëkk kan moo ko mun fii ci ñun benn waaye xoolee sa jabar rek nga di waxuma sax sa jabar mais da ngay fase jigéen sax benn xarit takk ko rek nga noonu ko diw du sama xarit man yaakaaroon naa ne ndeke moom li muy reer si fii yëpp nga commencé di indi kenn xamut allahu akbar ñee dañoo sincère woon dañoo dëgg woon lañ doon dund mooy lu leer nañ du ñu woon ay naafeq allahu akbar dañoo set dañoo mbokkoo jël waa muhaajirin taf leen seeni bopp mbokkook ñoom keroog ba aaya bi wàccee yonent bi ne mbokkoo leen innamal muminuuna ixwa ku nekk da ngaa jël kenn ne man kii mooy sama mbokk ba ñu yaakaar ne sax boo deewee kooku daf lay doon bu aaya bi wàccul woon yàlla tere leen loolu dañ ko doon def ñoom allahu akbar kon mbokki jullit yi ñii mënuñu tolloog ñoom dañuy ñaan yàlla loolu gaa yi di wax yàlla taas leen taas ñu ci seen yoon bu ñu jaaroon ñu jaar fa pour am ñoom li ñu amoon waaye toog rek naan yàlla ñu te yàlla taas seen barke déedéet dañuy jaar ca yoon ba barke ba ñoom fii la ñu jaaroon ñu am barke ba ñun tamit ñu jaar foofu uti barke boobu ixwatal iman yàlla nee na walladina tabaauhum bi ihsan ak ña leen topp gis nga ci yoon woowu kon ñun nañ góorgóorlu ñu bokk ci ñooñu ña leen topp ci yoon woowu fi amalihim assaaliha ci seen jëf yu baax yooyu ñoom lañ doon def suñ la nee diw dafa baax diw de ku baax la xam nga lan moo war a nekk sa question waaw diw moom lan moo lan la doon def ba baax wala diw dafa am xaalis moom da doon def taaba taaba di projet nga ne waaw moom moom moom moom nan la def ba nekk borom xaalis ñu ne la nangam ak nangam yow tamit nga jéem a jaar foofu ah ñi nga xam ne ay footballeur professionnel lañ ñoom bañ demee ba nekk ay footballeur professionnel ñu am ay doom ñu bëgg seen doom yooyu nekk ay footballeur professionnel nan lañ def dañoo yóbbu seeni doom ci école football yu mag yi pour seeni doom jaar ci seeni tànk ñoom ñi doon mbër bëgg seeni doom nekk ay mbër nuñ def dañoo yóbbu seen doom yi ci école mbër yi di bëri ji ah ñi doon ay ay acteurs cinéma waaw bi ma nekkee xale daanaa seetaan benn acteur Inde bu tudd Dharmendra ah ma jékki-jékki ñu ne kii doomu Dharmendra la gis nga jaar na ca doomu Patanki Baay ja Setar Gansina ma jékki-jékki ñu ne kii doomu Setar Gansina ma ne ak na jaar na fa Eh, am na keneen ku xaw ma sa si kapoor xaw ma allahu akbar waaw nga gis ñooñu ku nekk sa doom fa nga jaar nga gis nga fay jéem a jaar pour sa doom mel ni yow léegi nag yow nga ne ab jullit nga nga ne doo jaar ci yoonu sahabatul kiram ak yoonu taabiin yi da ngay ber sa yoonu bopp du dem doo dem foog nga am loola gàllankoor waaw innal muhibba liman yuhibbuhu muti ku topp da ngay ku bëgg da ngay topp li nga bëgg ku bëgg da ngay topp li nga bëgg borom bi nee na ñii ñëpp mbooloo yi boo leen xoolee assaabiquuna al awwaluun min al muhaajirina wal ansaar wallazina tabauhum bi ihsaan ñii ñëpp allahu akbar radiyallahu anhum yàlla nee na kontaan naa ci ñoom kan moo wax kontaan na ci ñoom të të të të allahu akbar ñii ñii texe nañ xoola yàlla ci boppam moo toog ba mu nekk mu ne ñii kontaan naa ci ñoom ah eh waay tey su Macky Sall waxoon kontaan naa ci yéen gars yi lu ñuy reere bu ñu paree tafsir ah ndeysaan allahu akbar xoolal yàlla waxuma sax yonent bi waxuma jibril waxuma dama ne yàlla moo xool ñii ba mu neex ko mu ne radiyallahu anhum man yàlla kontaan naa ci ñi gërëm naa leen jeex na faysal tëj naa bunt bi Hmm. ba pare léegi ñun ñun ñun ñu ba wax ñi baaxuñ ku yàlla sang ba nga set solal la diw la ba nga ràññ parfum la solal la yére tegal la sées ne la toogal nit ñi ñëw ne kii moo tilim waay kii sotul dara ci baaxul yow yaa baaxul d'accord xam ngeen doomu aadama yi lu ñu yor jikko weñ weñ xam ngeen weñ xam ngeen weñ weñ day fekk ku sangu ba mu set diw bay nes nesi solu ba rafet sotteeku parfum bay xeeñ weñ bi bu ñëwee day naaw tag ci mbaxne mi wër ba sonn gisul dara mu tag ci kanam gi wër ba sonn gisul dara mu tag ci yére yi gisul dara mu ñëw fii ci loxo bi gis benn góom bu ndaw rek taxaw fi naan nii di ko gas loolu mooy jikko weñ mooy tey jii ñun suñuy melokaan ñu yàlla ne dañoo baax ñun ñu bëgg ne ñooñu baaxuñ si ay bëgg a toog fii rek suñu kaw ne ñu saaba yu baaxuñ ba pare ñun ñu gëm ko nga gis sax ay sénégalais yuy saaga Aboubacar ak Umar ak Ousmane ak Aïcha ak Hafsa di leen saaga waxuma sax ñeneen yeneen dëkk yi waaye sénégalais laa wax la ilaha ñun fuñ jëm ubbi ci rajo spécial pour saaga sahaaba yi bu fekkoon ne sahaaba yi baaxuñu lan mooy yi wane ne sahaaba yi baaxuñu yàlla da koy wax ci alxuraan waaye xoolal lan la wax ci ñoom fi aaya bi de wala man man man li may wax ni du alxuraan wala seen kaamil yi loolu nekk ci li ngeen tiim lan la yàllaa leen lim de wasaabiquuna al awaluun min al muhajirina wal ansaar wala du loolu mooy aaya bi wallazina tabaauhum bi ihsaan radiyallahu anhum man yàlla gërëm naa leen kontaan naa ci ñoom bi sababi taatim lan moo tax yàlla gërëm leen nag mooy lan lañ ñun ñëpp loolu la ñu war a laaj waaw ñii lan moo tax yàlla gërëm leen bi sababi taatim ndax dañ doon topp yàlla wa inabatihim ilayhi dañoo delluwaat ci yàlla wa xasiyatihim minhu dañ ko ragal wa raghbatihim fii ma ladayhi dañoo bëgg li yàlla yor ñu dem uti ko yàlla jox leen ko ñu doyal soxlaatuñu keneen li nga yor waaye ñoom it ba leen yàlla gërëmee kontaan ci ñoom ñoom tamit waradu anhu walla ñoom tamit ñu kontaan ci yàlla faysal ba leen yàlla joxee njukkal dañ koo nangu yàlla nee na wa addalahum préparel naa leen jannatin ay jardin yoo xam ne tajiri day daw min tahtiha ci suufam al anhaar ay dex ay aljanna yoo xam ne kër yi day daw day tëmb ci dex kër yi day feey loolu laa leen préparel ñooñu lii xanaa li mooy wan ne yàlla kontaan na ci ñoom yemu ci de mu ne bu ma leen fa dugalee aljanna yooyu xaalidina fiha abadan dañ fay sax éternellement dootuñu génnaat amul ci capp de de buñ duggee dootuñu génn wala lu mu tëjee aaya bi zalikal fawzul azim lii mooy texe bu rëy bi saaba yi kon texe ne wala naka na di di texee nekk aljana di waaj a jël caabeem di dugg ab aljanna yow nga toog fii ci àddunaan kii baaxul fekk moom mu ngi mu ngi ci rang ba nga taxaw naan kii baaxul yàlla nee na zalika al fawzul azim ñi dugal naa leen ajjana texe nañ xanaa sa si ay bu ñu doon jàng alquran ba yegg fii kon xanaa war nañoo deltu ginnaaw waaye déedéet parce que lu tax seen alquran ak suñu alquran du benn dañoo am mushaf mushaf lan fatimi am na aaya yoo xam ne mu ngi ci am na aaya yoo xam ne nekku bépp aaya buy tagg saxaaba yi dañ ko cee dajji dindi ko ci sànni ko fële indi ji yeneen yu kenn xamul waaye yàlla baax na sax léegi ñu ngi deltu ginnaaw ñu ngi jàng alxuraan bi parce que imam Khomeini moo leen ci génne ne leen ni fa ngeen jàng alxuraan bu ngeen jàng alxuraan bi ci ab ci musiba ngeen nekk parce que adduna bi alxuraan lañ xam seen téere bi kenn xamu ko bu ba ngeen teg ko fekk ngeen jàngi alxuraan loolu moo leen ci delloowaat mbokk yi yàlla ci yàlla borom bi tabaraka wa taala bàyyi na sahabatul kiram mu ngi ñëw dund environnement Medina mbooloo bu ba tasaaroo rek nga gis ay ay ay ay benn benn yu ci rax mbooloo fu ñu bëri rek nga gis benn benn yu ci rax waaw léeg nga dégg euh, waaw tey jii de bi ñuy julli dañoo julli ba pare rek am ku jël ay dàll dafa am ku fa rax dafa am ku rax mbooloo mi waaye yéen yow de mbooloo l'islam bi doo daje woon fenn benn waaye daal lañ fa jàpp muy jël portable ya ku sant saw ah det det julli nañ fii ci jàkk ji ba pare fii nii fii portemanteau bii bii ay dàll manqué fa ana mbay waaw bàyyi ma ba pare rek biñ sëlmalee borom daal yi ne sama daal dem na ñu dem ci caméra bi ci kaw arrière caméra bi ñu gis waa ji jël daal yi du bokk kenn ku toogoon ci biir waaw ne kii diw la kii de góor kii kii kii sow la daal kii sow ñu dem seen kër ah waaw lu yàlla de wax dëgg yàlla ana man kay li ma kii woon sax mooy bu bu bu bu kii mbay nekkoon fii mbay moo ko xàmmee moo ne kii de kii sow la bu mbay toogoon fii boog mbay leeral ko ah wala ku sant caam la boog wala saar wala jaa wala taal ah waaw ah ñi sant jaa tamit ñoo ngi bañ de ñoo ngi nii di yëngal bopp yàlla mu ne wa mim man hawlakum ak li leen wër gis nga li leen wër minal arabi jàngoon nañ samedi al arab ci ay kaw kaw ñooñu munaafiquuna ay naafiq lañ gis nga moo tax mbir bu yaatoo rek gis nga ba ñu nekkee Makka ñu am formation tawhid fukki at ak ñett yonent bi di leen jàngal laa ilaha illallah amul naafiq bi bi mbir mi saxee ci ñoom amul naafiq foofu nga gis ku ñuy rey tëral la di la rey naan la weddil yàlla nga lànk ñu rey la fa la ñu reyee fa la ñu reyee Ammar ibnu Yaasir Ammar Ammar reyu ñu ko de Yaasir lañ fa rey baayu Ammar moom la ñu rey rey Sumayya lakk Soayib dóor Ammar ba mu saaga yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu jàpp saxaaba yi kenn par kenn di leen di leen di leen faagaagal waaye terewul est-ce que gis ngeen ci ko weddi jàpp Bilaal di ko tëral ci naaj bu tàng bi jël ay doj di ko teg ci dënn bi naan ko weddil yàlla mu naan ahadun ahad gis parce que tawxiid moo dugg ci ñoom tawxiid tey ji loolu moo ñu manqué tawxiid kennal yàlla gisuñu leneen la ñu gis lu dul yàlla ñoom nag yàlla rek lañ gisoon waaye gis nga bañ demee Médine nga xam ne léegi charia la ñuy jàngale nooy jullee nooy wooree nooy jàppee ñooy joxe azaka ñooy ajee màkk rek naafiq yi commencé wala yàlla mu ne jalla jalaaluhu wa mimman xawlakum bëri na ci li leen wër ci li wër madina min al qabailil arab ci xeeti giiri arab yi leen wër ah yàlla mu ne munaafiquuna ay naafiq lañ kenn gëmu ci yàlla dañuy fen mu ne wa min ahlil madinati ak lenn ci waa Medina ñi nekk fii nekk ay yahud dañu tuub tuublu ragal leen yéen jullit yi tuub tuublu dugg ci lislaam gëmuñu dara ay naafiq lañ moo tax gis nga diine ji li ci gën a bon tey mooy naafiq yi ñooñu lor ñooy lor lislaam bi ñooy fees jàkka yi yenn saa yi ñu nekk sax ay imaam yenn saa yi ñu nekk ay bilaal yenn saa yi ñu nekk ay njiit fekk ay naafiq lañ gëmuñ dara xoolal ki toog naan màkka jarta dem góor guy wottu te nga ne njiitu lislaam nga yow la nga ki toog nekk kilifa nee na kilifa nga nga ne man mënumaa jàpp xoolal tey fu ñu toll Sénégal mooy bëgg am sëriñ bu jigéen xanaa sax bu doon muuru nga xam ne kenn du gis yaram bi ah muy yar taalibe yi ci jàng alquran yar leen ci sunna di leen di wammat jigéen ñi nangu nañ sax mu jiite jigéen ñi bokk di leen waaye yéen gis ngeen kooku may wax ni gis ngeen kooku seen bët am na ci ñoo xam ne sax séexlu nañ mu nekk seen jabar man de ku ma ko mayoon ak li mu yoree bëgguma ko saa yi nag maa ngi doon tooñ gaa yi temps yi maa ngi leen doon tooñ man leen gaa yaa ngi koy rang ñëpp a ngi dem ibaadu yi nañ ma ngemb boog ma dem man tamit comme ñëpp a ngi buuxante ji ma dem gaa yi dañuy ree ba sonn ah mais ne comme yéen amu leen ko candidat def leen ma candidat bo ah mbokk yi nañ leen delloo si xel yi ci yàlla ñu xam ne adduna du ay taaru taar kooku ana ki ko yoroon dem na bàyyi ko fi moom léegi mu dem am na ñu leen fi jiitu woon anañu xam nga ñun suñu problème yëpp mooy dañu yaakaar ne tey la tey la tey la da ngay fàtte ne da ngay dem boo demee Dakar am na benn immeuble bu fa gën a gudd moo gën a gudd ci immeuble Dakar yi ana borom nu mu tuddoon ah kooku dañ doon wax ne moom alala mook danki suuf see tolloo ndax lu mu amee alal ana mu tey ana alal bi jeex na ah xoola qaaruna yàlla nee na inna qaaruna kaana min qawmi muusa fa baga wa aataynaahu min alkunuuzi ma inna mafatihahu la tanuu bi ulil usba haaruna daa bëri woon alal ba day romb alal moomu moom ko mu ne ku moom lii ñu ne ko ah yi kay yaa ko moom mu ne ah ma sama kër yi la bokk day fàtte na sax moo ko moom ndax nu mu bëree mënu ko contrôler caabi magasin alal yi ci ay gëléem ñoo ko doon yenu fii am na fi ngi ko gis boo xam ne ay caabi magasin compte banque yi ay gëléem lañ koy rek wax leen ma ko mu ne gisaguma ko xaaru na de moom loolu la amoon caabi magasin yi ci ay gëléem lañ koy teg gëléem yu ngand nag ñoo koy sëf di ko yenu di ko wammal allahu akbar ixwatal iman waxtu jaamu yàlla jot na caaxaan sori caaxaan jot na bàyyi bàyyi caaxaan jot na waxtu jaamu yàlla jot na de waxtu xelu dellu ci yàlla jot na xelu am xel dellu ci yàlla bàyyi po bàyyi puukare bàyyi mbumbaay xam ne ñun ay jullit lañ mbooloo moo ànd di fo di nga leen bàyyi fekk yàlla yàlla toog di la xaar yàlla mën a muñ da ngay nekk ci lu la neex mu xippi ay gisam di la xool parce que yàgg-yàgg xam na ne di nga ñëw ci moom du la fekk foofu nga nekk ci mbooloo moom mu faat la fa de day bàyyi ba nga dellu si ci moom rek jël temps moo tax mu tudd saabir ixwaan yi ñii nii yàlla wax ne munafiquun wa min ahlil madinati yàlla yemul ci loolu mu ne maradu ala nifaq ay maraqu wa hazaquuhu wa ataw fihi la ilaha illa dañoo muur dem ba terminus ci ak naafiq mënatuñu deltu ginnaaw ah xoolal nit nekk naafiq ba mën a tujjee génn chronique yàlla nee na ñii maradu ala nifaaq dañoo chronique ci ci naafiq mu ne laa taalamuhum yéen xamuloo leen du yéen yéen a leen xam nahnu naalamuhum man yàlla maa leen xam waaye yéen ñi ñuy dundal xamu leen ne diw mii yaa ngi dend ak moom ci sàppe jàkka ji nangam ak nangam fekk naafiq la moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam yàllaa ko dee seen tur ñoom ñëpp mu daal di jël tur yi enregistré ko Huzayfatul Yamaani ne ko Huzayfa ñii ñëpp ay naafiq lañ moo tax Huzayfa moo yoroon secret yonent bi alayhi salaatu salaam ci xam ñan ñooy naafiq yi Omar danaan tëdd ba guddi mu ñëw ci Huzayfa ne ko Huzayfa fëgg Huzayfa ne ko kan la mu ne ko Omar Omar looy ut heure bi guddi sama kër Huzayfa dama laa soxla Huzayfa bu ubbee exil mu ne ko déedéet. benn leen dong laa lay laaj leen kese dimbali ma nga wax ma yow Huzayf man ci naafiq yi laa bokk wala bokkuma ci Huzayf ne takk di ko xool ba caag ne ko yonent bi dafa tere woon ma wax sama tur Huzayf dimbali ma nga wax ma ndax man Omar ibnul Xattaab mii man mi yonent bi wax ne law kaana nabiyun baadi la kaana Omar man mi yonent bi tuddee alfaaruq man mi yonent bi tuddee alfaaruq bayna alxaq wal baatil man mii nekk ñaareelu xalifa yonent bi maa lay laaj dimbali ma ngir yàlla nga wax ma ndax sama tur mu ngi ci turu naafiq yi Huzayfa ne ko yonent bi dafa tere moon ma wax tur yi noonu la Omar di jooyee jàpp ci sikki moom dem ñibbi Omar buy tuumaal boppam naafiq kon ñun nu ñu war a def damay laaj Omar buy tuumaal boppam ne moom naafiq la ñun nu ñu war a def ndax moom du naafiq ñun nu ñu war a def kon wala ñun fi mu nekk dañoo set ñun set dañ setal suñu bopp ku nekk yaa ngi jagar jagar yi def ne yow anta min ahlil janna allahu akbar nan la Omar doon xamee naafiq yi su nit dee Omar day ñëw xool mbooloo mi di xool ran julli gi su gisee Huzayfa taxaw mu taxaw bu gisee Huzayfa jël ay dàllam wane ginnaaw mu jël ay dàllam ne julli leen seen néew noonu la Omar doon def pour xàmmee naafiq yi saa yu gisee Huz dëj mbooloo ñuy jullee kenn mu gis Huzayfa taxaw mu taxaw ndax yonent bi dafa tere woon ku jullee naafiq sallallahu alayhi wa sallam borom bi nee na laa taalamuhum yéen xamuloon leen nahnu naalamuhum man yàlla maa leen xam waaye dégg leen yàlla lu mu wax ci naafiq yi mu ne sanu azibuhum marratayni dinaa leen buggal ñaari yoon dinaa leen buggal aduna buggal leen alaxira yemuñ ci de mu ne summa yuradduuna ila adabin azim danaa leen dugal ci mbugal moo xam ne mbugal mi li ko gën a rëy amul wa axaruuna am na ñeneen i'tarafu bi zunubihim xalatu amalan salih am na ñeneen ñoo xam ne du ñu ay naafiq waaye dañoo dañoo jaxase yu baax ak yu bon xalatu amalan salih dañoo jël yu bon ay bakkaar daal di ciy jaxase ay jëf yu baax jël ay jëf yu baax baax ajjuma ñu dem julli ji juma vendredi ñu baali déglu alquran fii déglu musique ah langal tubéy gi fi yenn saa yenn saa yi ñu xaw ko yëkkati xalatu amalan salih wa axir sayyi'a def nañ ci yeneen yu bon waaye ñii ñëpp nag la ñuy def sax di jaxase xëy na ëllëg asallahu an yatuba alayhim ëllëg xëy na yàlla baal leen allahu akbar sunu borom moo baax moo tax doomu aadama effort bu ndaw nga war a def rek pour nga dugg àjjana lu tuuti lu tuuti boo ko defee dugg àjjana lu tuuti la la yàlla laaj effort la laaj tuuti rek nga nekk ci waa aljanna ndax yàlla dafa baax waaw yàlla soxorul jalla jalaaluhu wa azza kamal yàlla dafa bëri yërmande yonent yàlla Moussa dafa suul Haaruna bi muy ñibbi mu daal di woo yàlla ne ay yow yàlla sama rakk ji tey fii ci biir bàmmeel moom kenn cundung wéet du ndey du baay du mag du xarit du rakk du kenn du lekk du naan ay yàlla yàlla mu ne ko Moussa demal ñibbi kii bi muy dund laa ko seetaanul waxuma laak bi mu wéetee moom kenn tey mënul dara xam nga ne duma ko seetaan bu fekkee bi muy dund laa ko seetaanul woon waxuma laak tey bi mu duggee biir bàmmeel mënatul dara Moussa demal nga ñibbi nga bàyyi maak moom kon sunu borom noonu la bëree yërmande effort bu ndaw la ñu laaj rek ci lu baax ñu góorgóorlu ñu def ko mu daal ñuy yërëm dugal ñu àjjana moo tax mu ne inna allaha yàlla xafuurun kuy jéggale la rahimun kuy yërëme la yàlla nañu yàlla jéggal yërëm ñu loolu mooy darsi tey asalaamaaleykum ورحمة الله وبركاته